donc loolu moo ma booleeg nebadaay ma am jabet fekk daan nañ ma may nebadaay jabet bi ñu dagg sama benn baaraam hmm. infection bi yéeg hmm. ñu ni kon nañ ma évacuer d'urgence Saint-Louis dagg tànk bi balaa muy monter parce que monter rek mën na ma rey hmm. mu tombeeg un vendredi ma am chance bi ma demee ndar docteur bu war a dagg sama tànk dem ci ñaareelam ci Louga ñu ni kon duñ may def sous xaar lundi pour ñu dagg tànk bi. Mhm. ma woo sama jabar d'urgence di a jël sept place mhm. indil ma graine nebedaay ak poudre nebedaay mhm. defaraaleel ma jus nebedaay indaaleel ma ko. mu laq graine yi laq poudre bi laq jus yi. bi mu ñëwee mu jox ma ñetti graine ma yëy le matin. ñetti graine à midi ñetti graine la soir. jël poudre bi bi may ndékki mu def ko ci mburu mi. bi ma añee ba pare mu jënd ardo light mooy ardo boo xam ne suukar jabet moo ci nekk mhm. ma jël ardo bi def ci nebadaay lekk mhm. comprendre pendant trois jours mhm. vendredi samedi dimanche lundi matin à la première heure ñu yóbbu ma urgence defal ma analyse de sang ñu constaté que ni nebada glycémie bi suukar bi wàcc na ñu ni kon kii bu ñu daggagum tànk bi infection bu ñu doon ragal il avait trois grammes cinquante léegi wàcc na ba mu ngi ci presque un diggante zéro quatre-vingt-dix ak un. ñu ni kon nañu observer pendant deux trois jours. ñu observer pendant deux trois jours suukar bi di gën a wàcc. ñu laaj ma lan ngay jël waxuma leen lan laay jël ma leen dara perfusion yi nga ma def rek xëy na moom baax ci man ba suukar si wàcc na. parce que boobu bëgguma docteur yi xam ne ne ba daay laay jël. ma def fa un mois. ñu libéré ma. ba léegi fi may wax ak yow maa ngi nii di dund te daan am ordonnance cinquante huit mille par mois. Hmm. di jël glucophage di jël insuline balaa may lekk pikiiru léegi ça fait cinq pikiirootuma ndax nebadaay bi ça fait lekkatuma leneen luy garabu tubaab lu dul garab yi may defar muy nebadaay bi ak lu nebadaay ak beneen garab boo xam danaa ci ñëw ñu tuddee ko njafaan muy une combinaison miraculeuse boobu nebadaay laa jël laaj. jinjeer buy ak meew ak tuuti suukar moom laay utiliser moo fàcc sama jabet te du ni jabet du wér. léegi ana jabet bi. wér na actuellement damay lekk lu ma neex. juróom-ñaari kudd yu ma daan wax may lekk. Hmm. su suñu tegee boolu ceeb maa ci mucc.